damaa bëgg ma ñun ay jeunes lañ bu ñu kenn jaxase ñun ay nawle lañ bu ñu kenn boole daam sëñ Mamor damaa bëgg ñu joxante loxo ba ñu xuloo bañ a xeex président moo soxla yeneen élection ngi ñëw local yaa ngi dégg euh, euh, conseil économique social environnemental mi ngi ñëw leneen ak leneen a ngi ñëw boobaa tojantey bopp la comme neex nga dem tojante ji bopp mais président moo soxla nañ joxante loxo li bëgg ñu defal koko Touba gi kat boo gisee ku jug xas ñu ñàkk gu ñàkk mën a gagné dong moo tax te nag ñàkk déggoo kese moo ko waral may du leneen loolu la maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax ne damaa kontaan Mbaye Dia démb déggante nañ li nga daj ci parti bi dégg naa ko te barki Seex Ahmadou Bamba dina dañ loolu man maa la ko wax ndax li tax ma wax la ko man xam naa ko parti bi nag boo ci nekkee nekk jàmbaar nekk gor doo am dara de doo am dara dañ lay seetaan rek len dong la mana mana may nga dëgër bop bu lu ñuy téyee rek nga dem ci ñettes mais fi mom feeg yaa ngi fi nek dëgëroo bop du am dara lolu mom man mako wax ndax dañoo nawloo wut boo munta nek ci ñom di sukk ka ram ak di len balel duñ la respecté ñen koy defal nak ñun bokku ñu ci ñoñu ñun suñu deret yi dañu gën luñ mëna am ñun président Macky Sall lañ gëm. ba ah, bo lambe ndaw ñu da nga daj heure bo lambe ndaw ñu da nga am deuxième mandat ndax ñun luñuy def. dañ koo xam ba pare man ko dañoo noppi ba nit ñi naan xanaa dangaa nangam dañoo xam li ñu doon xam li ñuy peese nekk responsable ci côté yëpp rampe suñu àdduna li ñu yor nii dañoo def election gagné ko Touba yëpp ñu jiite ndaw ñi kon nag war nañoo mën a jox suñu gëdd kër ña ngi nañ ko jox gëddaam ndax léegi rek maa ngi dégg ñu ngi may wax ci sama ginnaaw ne dañuy def point de presse léegi nii nañ ñu jox suñu gëdd nañ ñu jox suñu gëdd bu ñu joxee suñu gëdd li ñu bëgg danañ ko am bu ñu ko joxul lu ñu gis bu ëllëgee ñoom la te gis nga nit ñi moom ñii encaissé sa xaalis bu ëllëgee boo demee ñu dem feneen rek loolu mooy wax ji maa ngi sant sama xarit yi nga xam ne ñoo ma jàppale dinaa lim tur yi ku ma tuddul rek na nga xam ne nit moom matul maa ngi sant xale yi nga xam ne dañ may àndal dañuy ànd ak man di def politique politique nekk lu metti xas nañ leen def nañ leen lu ne waaye téewul ñu jàpp fi ñu jàpp barki dem rek damaa def benn pas bu ndaw bi ñu jub élection yi fexe ba ñoom ñi nga xam ne ñooy sama entourage ma fexe ba ñu jàppale ma kenn ku nekk ñu am lu ñu la jox nga téye ko loolu nekk sax ci man ndax am na ñoo xam ne ñoo ma jiitu ci parti bi te mënuñu ko loolu du dara ci sama yéene ci yéen damaa bëgg oto yi nit ñi war ngeen di ko war dama bëgg xaalis bi nit ñi yor ngeen di ko yor